ministre d'État Mbaye Ndiaye yëkëti kàddu jëm ci di daganal ñettelu mandat Bob Macky Sall war na ko mëna yotu 2024 mu dëppe ko ci ni constitution beeg niñu ko tëggee lolé gannaaw bi ay réaction jëmee ci gaay yi APR yi ak it ñi nga xamantene ji ñom lañu bokal bokkal ko politique gis-gis yi bare kon té wuté ño lank ño bañ nee nañu bu autorisation ñu ñàkk ko lañ ci yamalé ñom collectif gi suba fas nañu yéenee amal ab doxub ñaxtu ci bunti campénal di fa ñu tëj Guy Marius Sagna lañu ci jublu lu bokk na ci daal sàkku ci ñu génne Guy Marius Sagna ci kaso bi coronavirus bi tax na umra jamono ji doon nay jafe-jafe sabab li mooy kilifa yu màkke yi ñoo jël dogalub tëj seenum réew kenn du fa dugg kenn du fa génn ngir jël seeni matuwaay ba jàngoro joojee bañ fa yegg si li mu jur nag bokk na ci voyagiste privé yi di ñi nga xamante ne dañuy jëli nit di leen yóbbu màkka ñuy umra ji jamono ji ñoo ngi ci jaaxle ko tonk ndax dugal nañ ci seenub dërëm bu nuppi ndakaaru tey ji kilifa yi xëy di mandargal ak it jëli matuwaay ngir di def tey bu fi jàngoro ju duggoon ban taxawaay lañu ci mën a amee nañ koy doxalee des na ci dikk géen ci xibaaru digg bëccëg gi buñ ca noppee dikk ak ajaratu Binta Diallo ci xibaar yi biti réew yi lu ciy gën a fës soxna si. lu ciy gën a fës bokk na ca Mohamed Guinée Bissau dinañ ko mujj investir tey jii président omaro Sissoco mbalo cérémonie officielle bangay ngay am jamono yi ci benn hôtel foofu ca Bissau président Condé moom daal di ca Guinée Conakry dàq na ca biti waa CEDEAO fekk benn mission ñeenti njiitu réew doon waaj dem Conakry ëllëg ñaari fan des ci ñaari élection yu ñuy waajal ca Guinée te opposition ba boycotté. tàggat yaram a koy wuutu Youssouf Bodian ci ciy àndal lu gën a fës football coupe arabe junior ci Arabie Saoudite Sénégal euh, dina daje ci quart de finale yi waa Bahreïn bu 15h30 jotee euh, sélectionneur algérien bu Sénégal euh, jàpp ni kon gaynde yi mun nañu génn ci match boobule donte sax xamuñu lu bëri ci seen adversaire bi. 16e de finale retour Ligue Europa bëri na ay sénégalais yu ba yu war a sóobu kon ci mbir mi bokk na ci ñoom Crépin Diatta mi nga xamante ni kii di entraîneur bu. manchester jàpp na eh, eh, ni kon bokk na ci ndaw yi gën a xarañ ci équipe am boobule box xam nañ léegi ñaari fukk ak ñeenti africain eh, yu njëkk qualifié ci jeux olympique tokyo 2020 bokk na ci juróomi algérien kenn ci ñoom di ngeen ko dégg kon ci biir xibaar yi xibaaru digg bëccëg ci rajo Futur Média gannaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ci loolee ñëw ak yéen ci gis-gis tey ji ñu ciy mbiri mandat présidentiel de la république euh, mandat euh, président de la république lay doon jëmee ko ci constitution beeg ñi ko tëgg ak jàngat bi ñu ci am euh, sukkandiku ci article 27 bu constitution boobile Aliou ci kaddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur média ni ñu ko junje woon ca bopp ba rek la duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg ba ca géek embouteillage bu yéeme boo xamante ne ji am na ci autoroute bi ñuy sàkku ci ñi nga xamante ne ji dañoo bëgg a dugg si ndakaaru bëgg koo jaaree ci autoroute bi nañu seet meneen pexe ndax bu ñu fa jaaree xalset nañu faa yendu li ko sabab mooy diggante pont bu Patte d'Oie ba fi nga xam ne moo di pompier oto demul oto dikkul lépp ne tekk la sabab bokk na ci embouteillage bu tar bu fa nekk ñu bamtuwaat ko embouteillage bi am ci diggante kon autoroute euh, ci autoroute bi diggante euh, Patte d'Oie ak euh, pompier yoon woowee ñi jóge Patte d'Oie di dugg Ndakaaru diggante Patte d'Oie ak pompier embouteillage bu doy waar moo fa am ba tax na borom wata yi nga xamante ne ji bëgg nañu jugee dugg Ndakaaru ñu ngi leen di ñaan buñ ko mënee te bañ a yàgg ci yoon wi ñu teggi autoroute bi ndax foofee kon dafa xat pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ministre d'État Mbaye Ndiaye kaddu yu mu yëkkati démb ci télévision Futur Média ci émission Faram Facce bu Papa Ngagne Ndiaye wax na ci ne lu aju ci ñetteelu euh, mandat jëmee ci président Macky Sall tey bu ko Macky Sall bëggoon euh, du constitution bee ko koy aaye ndax constitution beeg ni ñu ko tëggee mu di constitution bu yees bi loolee kon téréwul Macky Sall mu yóotuwaat benen mandat ndax mandat ñaari at yu euh, juróomi at yu tegaloo la ñu wax te moom benn juróom benn mandat juróomi at la defagum nag nga xamante ne ji moom ministre d'État mbay Ndiaye wax na ko démb euh, bari na ay euh, réaction yoo xamante ne ji amee na ci mm, réaction yi bari te te te wuute ñu ànd ci Pabès Diba waxi mbay Ndiaye ji ci mandat wu président de la république du waxi politique rek noonu la le luxar di conseiller politique bu président de la république gisee moom luxar Sarr mu ne directeur des structures bu APR dafa joxe xalaatam bu jarul sax yenn coow yi. koy defal ci xalaatam moom xalaatam moom mooy que Macky Sall bi muy falu dafa ne juróom-ñaari at te tey li ko tënk tey jii moom Macky Sall mooy moytul am mandat lu dul ci ay juróomi at mu nekk kon ku nekk juróom-ñaari at mu ñu laa yamal atti ak sart boo xam ne dafay tënk juróomi at léegi nag nit yuuxu fii di wax xalaatam la wax léegi am nañu droit ñoom contre ko am nañu droit aussi ànd moom léegi nag bu jotee dañoo xam mbir mi fu mu féete fan la ak lan la ñu wax Ligue démocratique ci pouvoir bi ñoom dañu xalaat waxtu wi jotagut ñuy wax ci ab mandat waaye lu ci mën a nekk Moussa Sarr porte-parole LD nee na lu ñuy def lu ne ci wàllu politique rek war nañ ci boole nag éthique. Mbaye Ndiaye noonu la gisee constitution bi donc am na ci droit te bëgg naa Sénégalais yi xam que de plus en plus que ça soit homme politique yi wala ñuy jàng droit débat bi dina posé wu ci réew mi mais ñun Ligue démocratique li ñuy intéressé mooy Macky Sall lu mu wax ci boppam nee na dañ ko fal pour mu liggéey amul jot pour wax ay troisième mandat wala quatrième mandat pour ñun loolu mooy une position c'est li ma c'est les partenaires de Macky Sall ñi nekk pouvoir bi ñooy sulli affaire boobu C'est pour moi véritablement comme ñu ñoo accompagner Macky Sall dañu war a xool li solo pour président de la République li gën solo pour sénégalais yi ñu wax ko. Macky Sall dane manda gaayam yi mandat bu ci kenn wax et puis ñëpp ñu xëtt yoon gum leen jaarale teg na leen

Euh, bu ndakaaru mm, dox ba Liberté 6 dinañu jaarit fi nga xamante ne ji moo di euh, buntu camp pénal di fa Guy Marius Sagna nekk Oumou Kalsoum li daanaka ñetti weer a ngi nii kii di Guy Marius Sagna nekk ci prison bi kuréel gii di ñoo lànk ni danañ wàccati ci mbedd bi doore ko échangeur bu foire jàpp rond-point Liberté 6 ngir naqarlu yokkute gi am ci njëgu courant bi ak téye gi ñu téye kii di Guy Marius Sagna El Hadj Mar nekk membre ci collectif bi. régime dictateur du régim boobu lañu faloon ñi ñu faloon ci sunu réew dañu leen faloon ngir ñu ñëw delloowaat Sénégal ci raayu démocratie mais malheureusement. ci weneen yoon wala ñu jaar ñoo lànk nag mu ngi taxaw di alerter comme nañ ko daan defee di alerter ba tey ji di leen wax ni bis bi ñu jël muy vendredi suba le 28 li tax ñu choisir rond fois foire jaar camp ba dem ba rond point liberté foofu dafa am étape bu am solo bu fa am étape boobu mooy buntu camp pénal. camp nekk na bërëb bu am solo ci ñii di manifestant yi ndax jàpp nañ ni bu ñu yekkee ci bërëb boobee daañ fa taxaw ngir wane seen coloré ak seen jàppale kii nga xam ne moo di Guy mari Sagna. di wax sénégalais yi nañ ñëw en masse xool ci rangooñu bàyyi gii mari Sagna yooyu mu tuur. ñoom ñëpp ñu génn xam ni injustice la ñu ñëw ñun ñëpp bu ñu accès ba romb ba ba ba camp ñu wan ñu Guy Marius Sagna yëg ni agsi nañ fa nu ko waay mën a defee ci lépp rek ci yar ak teggin bi ñu xamee Sénégal ndax nag nañ waxante dëgg dañu yor régime boo xam ni du déglu askanam tey Macky Sall ak ñi mu àndal du déglu seen askan te fiñ ñu bëgg a yóbbu tey ci combat bi ñun ay légaliste lañ bëgguñu fa àgg ak moom kuréel gii di ñoo lànk ni dinañ wàccati ci mbedd bi ñu am autorisation wala ñu ñàkk koo am naataango Guy Marius Sagna yi ne dinañ xeex ba njiit yi génnee kii di Guy Marius Sagna ci nungu si teg ci wàññi njëgu courant bi. jàngoroy coronavirus ji ñuy dégg ci àdduna bi ma ngay gën di juri loraange gi yoon nag ci beneen anam la mu di euh, umra gi ñi nga xamante ne ji. dañoo bëgg a umra kilifa yu màkk yi dañoo jël dogalub tëj réew ma du ñu nangu ko fa dugg ndax ñoom it dañoo bëgg jël seeni matuwaay ba jàngoroy coronavirus ji du leen jege dogal boobee ñu jël nag am na lu mu jur nay loraange lu ci mel ni fii ci Sénégal ñi nga xam ne voyagiste privé lañu euh, privé lañu euh, jotoon a engagé wu jëli nit waroon leen a yóbbu jotoon cee def ay dépenses loolee lépp ñu nar koo tegaat fii suuf coono la ci ñoom report euh, ñu ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba mesure bi ñëpp ko dégg rawatina voyagistes privés yi ndaxte ñu ngi doon xool naka ñu yobé u jaaj yu bari ci Makka ngir ñu def sen umra lolu dina tax voyagistes yu bëri perte ci am Prera nek chargé de communication professionnelle aj ak umra jàpp coronavirus bi jar parce que tamit euh, risque yi kenn du ko jël. Euh, té tamit euh, dara jaru ko ci adina donc bala ngay jaamu da fay fekk nga wër té fi mu nekk aussi comme que ñoom dem nañ ba évaluer menace bi ba xalaat ni instant bi ni suspendre ba fi léegi fan moo ëpp solo dañuy toog taaxirlu déglu loolu. waaye nag boo xoolee bu baax ci wàllu xaalis impact bi day bëri dina leen touché ci wàllu koom. manque à gagner la billet d'avion yi nit ñi jëndoon nañu euh, hôtel yi nit ñi fayoon nañu charge yi nit ñi defoon nañu ko loolu yëpp c'est c'est à coût de plusieurs millions. ci lébu gi voyage foofu itam remboursement billet yi boo moyul dina posé wu. Palameng responsable ba. pratiquement sori nañu ci ci seen ñu pratiquement pour lu jëm ci a eh, ñun am nañ retard donc mais engagé nañ ay frais suñu xaalis mu ngi mais comme affaire bi moom cas force majeure la mën nañ ko dans ce contexte là bu ko defee ñu mën ko waxtaanee ñu xool ba xam et puis euh, suñuy autorité état aussi ñoom it ñu commencé waxtaan bi par rapport ak Nous ñu xool aussi une solution avec les autorités saoudiennes aussi il faut que tamit euh, qu'on parle à nos autorités et que une autorité aussi jëm ñu jàppale ci wàllu euh, autorité arabie saoudite aussi pour que ñu xool xaalis yooyu naka lay demee. fu mu toll nii nag boo xoolee wax Arabie Saoudite dafa suspendre temporairement yëf mesure boo xamante ni daf ko jël ngir éviter propagation coronavirus bi waaye nag mi ngi xool bu ko jaree mën na ko dindi. Sénégal mi ngi jëli matuwaayam ngir fàggu ci joojule jàngoro li koy firndeel moo di ca aéroport Blaise Diagne. Eh, seetlu nañu ne ña ngay wéyal contrôle ga bëggoon nañu nag xool bu baax a baax bu ñu wàccee ci avion bi nus leen di contrôler loole mënut a nekk ba tax na eh, suñu eh, ndaw la ca Mbour dem ci buntu aéroport ba xaar fa client yi ba ñu wàcc ba ñu wàccee te yeggee nañu ko contrôle bi ñu leen di def ana nan la nan lay demee mu di loolu it ñoom seen jëmi bopp rafet lañ nañu ko waaye di sàkku ci kilifa yi réew mi ni contrôle bi mel ci aéroport nani mel it ci frontière yi nga xamante ne ji ci suuf si la reportage Abdourahmane Diallo ay avion yu yéegee ki wàcc ay nit ñu tàkku ñenn ñi di voyager ñeneen ñi di gunge ñeneen ñi sax foofu la ñuy liggéeyee ñu ngi ci aéroport international Blaise Diagne fii nag feebar bi ñu duppee coronavirus dañ koy bàyyi xel bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci passagers yi nga xam ne ñu ngi door a yegg Mamadou Amadou Sow moom Tunisie la jógee. bu ma ñëwee dafa am benn appareil bu ñuy teg ci sama bopp fii nii dafa nuroo ak taser bon dafa reetaanloo quoi mais après dama comprendre parce que dama gis gars yi yëpp sol ay masque. daf ma étonné mais après ma comprendre que affaire faire bii la virus bi la. benen passager bu ñu dajeel moom français la Serge lay wuyoo Paris la jógee daal di dakar Ndakaaru mu ngi xamle ni sax xelam dal na ci matuwa yi nga xam ne gis na ni am na ci aéroport bi ngir xeex coronavirus bi. Eh ben, contrôlé nañ ñu ñaari yoon benn bi passeport bi la benen bi dañu jël suñu température donc dal na sama xel ndax lima gis Paris mom la gis fi tamit ci aéroport bi donc fi mu ne nii dinaa ñibbi ak xel bu dal. Mamadou Amadou Sow di ñaan. lii mu gis ci aéroport bi ñu amal ko tamit ci frontières yi. Sénégal dafa jege ay frontières yu mel ni Mauritanie Gambie eh, Mali ay Guinée yooyu tout ça donc dañu war a def eh, contrôle bi ñuy def aéroport Blaise Diagne bii nii nañ ko def foofu pour ñu mun a sécuriser suñu réew. bu ñu sukkandikoo ci kilifa yu nekkee ci ministère de la santé bi ñu déggee ni coronavirus bi laal na Italie ak réew yi nga xam ni am na ay sénégalais yu bari ci li ñu daal di yokkaat seeni matuwaay ci loolu sax. amalaat nañ ci ñeenti infirmier d'état ñaari hygiéniste ak dix préventionniste RFM Mbour jàll Diallo Abdourahmane des ba léegi ci wàllu paju meeg paj gi seetlu nañ ne fii ci Sénégal dafa ñàkk bu baax a baax ay spécialiste euh, ci wàllu neurologie euh, mu li koy firndeel mooy ñaar fukki neurologue ñoo fi nekk ak ñaari neuropédiatre ci réew mi yëpp nag loole kuréel gii di société sénégalaise de neurologie di ko ñaawlu di saaku ci kilifa yi ñu xutti ci seen tànkatu bay ngir saafara ko ba neurologue yi takku fii ci réewum Sénégal kuréel googee di société sénégalaise de neurologie ñu ngi amal tey ji lañu ko door seen ñetteelu ndaje jëm ci journée de neurologie ci woyle wàlla des di teewlu kàddu yi docteur Ousmane Cissé mi ngi bokk ci googile kuréel neurologue la it fële ci hôpital fan tey ji moo ne woon ganu RFM matin problème de spécialisation ak sous spécialisation médecine so paree sa formation générale ba pare yow yay xol li la neex nga def ko donc amul kenn ku la mën a contraindre nga def li wala lé mais état amna moyen yo xam bu ko tégué peut-être dina fexé ba gën la xiirtal ci yoon bi parce que état xamna fi mu manqué ay spécialiste xamna fi nga xamante xawna ko doyalé donc bu xolé fi mu manqué mu gëna par exemple bourse wala yenen moyen de motivation pour nit ñi dem foofu je pense que ce serait bien mais aussi amna ñeneen ñuy formé pour l'instant, mais là on est que deux pour tout le Sénégal là c'est... li nga wax deug la manque criard la neurologie neurologue aussi yaa koy wax neurologue yi spécialisé ñu spécialisé mhm. ci neurologie yu bëriwul. même centre neurologie tamit amul. Mhm. naka fan rek ngay dégg service neurologie lan moo tax tamit ba loolu tamit mu démé non ba nga xamanteni euh, ben centre yeb ci Sénégal gi mu nekk problème. actuellement on est presque 16 millions d'habitants ci Sénégal gi mais ben centre neurologie mo fi am muy bu hôpital fan amna yu ñuy waja a créé mais jusqu'à présent c'est plus en rapport avec gestion du gestion ministère parce que c'est pas les médecins qui créent les centres c'est le ministère de la santé en collaboration avec l'État donc c'est l'État qui crée ça. centre neurologie actuellement on est à 50. On mëna jël 50 waaw. Euh, lits de réanimation. quest que docteur Ousmane c'est di euh, neurologue ci hôpital fan rajo Futur Média xibaaru digg ba gi benn waxtu du ina wutali diwaanu kees foofee ñi nga xamante ne ji ñooy liggéey ci semaine d'affaires ba ak ñetu doon liggéey ba retraité ñoom ñëpp àndandoo rafetlu kàddu yi Macky Sall président de la république yëkkati jëmee ko ci santaane ñu taxaw ci nu mu gën a gaawe ba maanaam daal delloo waat raay boobee liggéey bi lépp tegewaat ci yoon ñu mën koo relancer mu du lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax foofee ca kees kees Cheikh Anta syndical yi nek fi ci Dakar Bamako ferroviaire fi ci diwanu Thiès bekk bëgg lool ci kàddu nga xamanteni njiti njiiti réew mi yëkkati na ko ñu xalaat ne bu ko yëkkatee de ñu gis ne dañ ko war a topp Mame Mbaye Tounkara di président intersyndical bu Dakar Bamako ferroviaire. conseil des ministres bi euh, président wax ci wàllu relance des chemins de fer ak gestion bi joxe ci ay ndigal yu précis sax ne dafa bëgg nu mu gën a gaawee pour acteurs yi trouver ay solutions consensuelles ci wàllu social bi mais aussi fexe nu saxaar gi jógaatee loolu tamit ñu am ci mbégte lool quoi kaddu ga waxoon 31 décembre jàpp ba léegi ñi nga xamante ay à la traité ci Dakar ba ma ko ferroviaire boobee ba léegi nag jotu ci seen koppar rafetlu nañ li nga xamante jël nañu ko dafa jaadu nag acteurs yi mu wax ministre beeg ñi nga xam ne ñoom la concerné ñu jóg seen jël seen matuwaay pour trouver solution yu mu gën gaawee pour que retraités yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi seen indemnité ferroviaire lolé lañu fassiyéné tabu yéenee ñi nga xam ne mooy cheminots yi nak bëc ci lool. national du chemin de fer jaaduna parce que DBF mënul continuer di nekk ci statut bi kenn xamul national la kenn xamul privé la donc il est bon que ñu doté ko mu nekk outil yu juridique et financière yu am solo. syndical yi nekk fi ci Dakar moom moo ko ferroviaire bu Thiès ak ñi nga xamante seen xam-xam match na ci walu ray ñom ñëpp di nee taxaw lañu tay ji de nguur gi woo ñu waxtaan xol nak société bu yes bi lan lañ ci mëna def ngir saxaar yi mën a déqiwaat gaar yi mëna a waat RFM Kies, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta liggéeykat yi ya ca société bii di société d'études et de réalisation des phosphates de Matam tey ci dañoo xëy. Euh, dakkal liggéey ba faste seeni loxo ne du ñu def dara euh, sabab li moo di euh, ñeenti weer a ngi ñu nekk ca kenn fayu leen seen koppar yooyee la ñu doon laaj ba tax tey ji ñu xëy kon doon wane seen bopp ñu teewlu kàddu yi kenn ca ñoom Alassane Wade boobu ba léegi ñoo ngi dox ñaxtu pour ñu jox suñu salaire boobu ñoo ngi toll si troisième mois vingt jours alxames bi ñu fa demee ñu toog déglu autorité yi barke démb sous préfet ñoo waxtaan ak moom pour ñu régler problème bi ñu ñoo leen déglu ñu may leen parce que une semaine tey nag bi ñu gisee démb amuñu benn lu leer moo tax tey ñu wàccaat arrêté système bi taxaw fii pare kenn du liggéey parce que ñoo ngi dugg suñu quatrième mois dès le vingt sept bientôt la fin du mois mu nekk ñeenti weer ñeenti weer yi nga xam ni suñu njaboot lekkul suñu dara lekkul amuñu lu ñu jox suñu waa kër yi léegi nag ñuy wax président Cheikh Amar ñi mu nekk taalibu murid sadiq ay liggéey katam toog fii bëgg dugg ñetti weer jotul seen salaire kooku metti na metti na ba fa metti yam ñu wax ni nan ko débloqué lu mu gën a gaawe parce que itam ay borom kër yu toog amul lu jox seen njaboot kooku dafa metti ku ñu gisul solution xeex bi day wëy parce que actuellement gendarmerie ñoo ngi taxaw booba lay ñoo ngi négocier ak na moo tax ñu taxaw arrêté di xool ba xam ñoom fan lañuy la ñuy mujje dem nañ préfet dem nañ ci sous gouverneur même suñu syndicat bi nga xam suñu affilié léegi léegi la lan raccord pour que situation bi mën a gaaw lu mu gën a gaaw Cheikh Amar moomee jiite moom kër ga ñoom liggéeykat yi di sàkku ci moom mu wax ci seeni mbir jéem nañoo jokkoo ak moom ngir di xam ana la fa xew lu mu ciy wax jokkoo bi suñ digg ak moom antuwul lu aju ci projet jëm ci wàllum mbay ak it koy yokk ku ko am sabab li li ñu seetlu moo di lekk-lekk la la cay la nga cay soxla ne comme ngir jëmmal ko dafay jafe loole nag ñi ngi ci pexe ngir ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu ko ci njiital banque agricole di CNCAS gawoon moo di ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko yëkkati ci ndaje mu ñu jagleel mbay di ko amalee ca Paris la France mu di salon de l'agriculture jamono ji foofee ca France France Mamadou Amar Dione producteurs yi ak investisseur yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu mbay léeg-léeg ñu am ay jafe-jafe ngir am koppar yu ñu financer seen i projet waaye nag directeur général bu banque agricole nee na xaalis bi mi ngi fii pour képp koo xam ne am nga projet ngir mën koo financer Malick Ndiaye. koppar yi nga xamante ni moom banque bi yor na ko macha allah am ñu financement bu ñu am ak AFD mu toll ci fukki milliards ci sunu xaalis ñu lebal na ko ci fukki at amna benen xaliss bo si négocier négocié nañ ko ak luñu wax Badea ñom tam jox nañu toll ci 10 millions de dollars boko ko xaymaa toll na ci à peu près 5 6 milliards de francs CFA soo ko xaymaa lépp nekk fukki milliards ak juroom fukki milliards juroom ben yo xamni nak liñuy wax investissement manam financement bu yag rek moko taxaju ñaari ñetti at ba fukki at mais pas lo xamni dañ koy financer ci fonds de roulement lolu suñu xaliss bopp lañuy jël jox ko opérateur yi fi toll nii bari na ci ay projet yoo xam ne ñu ngi koy doxal ngir ay xëy am waaye tamit ñu gën a ñoŋal wàllu industrie bi. ñi am projet yu baax projet yoo xam ne saytu nañ am nañu ay vraiment ay créneaux yu baax yoo xam ne mën nañ fa taxaw Sénégal ñu jàppaleen ñu créer ay emploi créer richesse jàppale ñu gën a renforcer suñu tissu de transformation agroéconomique transformé aussi suñu tissu industriel agro-industriel lolu moo ñu banque agricole bëgg nak jappelé ko koo xam am nga projet ngir développer ko rawatina sénégalais yi nek bitim réew Mamadou Amar Ndione Paris porte de Versailles RFM. RFM radio askan tay tey bu say say si di terroriste yi newoon bañax Sénégal kilifa Sénégal yi ban taxaway lañuy am ngir mën a gàntal seeni pexe loole la ñu xëy kon di nataal ak misaal xëye ko nag ca grand théâtre bu ndakaaru mu di lool ku fa romb da ngay jàpp ne daal mbir a fa xew ay terroriste fa am yooyu déedéet dañuy tàggatu te it di foogu ak namm ngànnaay loolee mooy li fa am Amadou Sabar Ba ma nga woon foofee euh, ASB maa ngi lay nuyu. di la fay Mohamed Ndiaye. ay ca nuyu fi demee simulation lañ ko wéyee ci tubaab. waaw nang ko waxee ca lañ toll nii fi mu toll nii takk der yaa nga takku dëgg yor ay ngaan naa ay fetal ak lu ni mel ak yëpp ngir wër ki nga xam ne ne mooy ennemi maanaam def ko du ñaaw yi xam ne ne ñooy terroriste yi fi mu toll nii nag fi nga xamee ne fi la bërëb bi li fi xewee nag ñu ngi ko cadrier ba nga xam ne ne kenn mënul dem kenn mënul dikk moom moo waral eh, tey jii nii comme ni nga waxee sànq maa ngi koy dégg embouteillage bari fi loolu ndax dañoo zone bi yëpp lañu ñu dégagé pour ñu mën am li woyal li nga xam ne ne moom mooy opération simulation boobu simulation nag mi ngi tudd fagaru 3 maanaam xool rek nu ñuy tàggatee gi nga xam ne ne mooy suñu takk der yi ba li nga xam ne ne bu fi jëye amee nuñ cay taxawee maanaam lii di attentat terroriste looloo tax tey jii nii fii ci Grand Théâtre ñi ngi amal lu ni mel Mohamed Ndiaye loolu yëpp nag ko def mooy ministère bi ñu dénk wàllum intérieur moom moo ko moom moo koy def maanaam bi mooy sax première action bi ci atum 2020 bi waaye jàppal na ne lii yëpp li ko waral bokk na xool yi nga xam ne ne mooy capacité de coordination kër gi di SICO ak CRCO bi nekk fii ci Dakar waaye tamit xool ci wàllum jumtuwaay lan lañ ci yor bi nga xamee ne ne mooy lii di terrorisme bu fi amee nan la suñu takk dari di mu Mohamed Ndiaye jàppal na rek fi mu toll nii lii di liggéey bi mi ngi woy maanaam simulation bi mi ngi koy amal fii ci grand théâtre ñi nga xam ne ne ñooy taskatu xibaar yi nag ñoom dañ koy seetaan ci ay écran géant rek seen kaaraange Mohamed Ndiaye ASB Amadou Sabar Ba maa ngi lay gërëm bu baax a baax euh, baax na sax ci ni ñu leeralee ci ndoxteel xibaar yi maa ngi leen di junj embouteillage boo xamante ne ji am na diggante Patte d'Oie ak pompier euh, oto munta dem munta dikk ñi jóge fu ñu mën di jugee di dugg si Ndakaaru jël autoroute bi daanaka embouteillage bi pompier la euh, Patte d'Oie la tàmbalee ba pompier ndeke li ko sabab mooy soldat sa ñooy tàggatu ca grand théâtre ngir di daa seen i ngànnaay ngir tey bu fi terroriste yi duggoon ñu mën a gàntal seen i pexe loolu kon moo jur embouteillage bi am ci autoroute bi borom wata yi bëgg a dugg si Ndakaaru bu ñu mënee moytu autoroute bi moo gën ci ñoom lu ko mooy ajaar bi xam naa gée fa leen di fekk. jar RFM bitim réew. ay ca yaa nga woon ca opération yi jar na ko.

prêter na tay ci waaw ña nga ca sax jamono yi eh, ña ngay amalé cérémonie officielle bi ci ben hôtel bu nekk fofu ci Guinée Bissau jafé eh, jafé nak amoon na ci walu bi ndax nak dañu nekkoon ci compté ak compté wat xop yi nga xamante ne génn na ci élection présidentielle ba waye nak CEDEAO mo defoon pression bi ni mel dañuy dem Bissau fekk fa na waa Mankali Umar Sissoco Embaló ko xamante moy candidat bu am dam ci élection présidentielle bu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci wér décembre balé passé fo xamante dafa am lu ëpp 53,55 ci suffrage yi moom la ñu war a fal tey ci hôtel Azalaï waaye cérémonie bi fu mu nekk nii euh, dafa marqué ci présence ay autorités yu bari bari waaye tamit ak militants ak sympathisants yu formation politique bu ñu nee Madem G15 maanaam mouvement pour l'alternance démocratique Madem G15 koo xamante ne mooy parti boo xamante ne moo gunge woon Ouma Sissoko Embaló waaye tamit ak yeneen formation politique ñoo xamante ni ñoo jàppale woon Thioum Sissoko Mballo ci deuxième tour fu ñu toll nii ñu ngi xaar cérémonie bi ndax ñu mëna am première déclaration bu président de la république Oumar Sy Mballo waaye Oumar Sy Mballo ko xamanteni mo wara succéder José Mario Vaz José Mario Vaz mooy premier président bu Guinée-Bissau ko xamanteni mo am dafa eggale mandat te kenn joxu coup d'état fi ci Guinée-Bissau et investiture bi manam ci prise de fonction bi dafa am ay différentes autorités comme ni mu ko waxone ak yenen ambassadeur ño xamanteni ñoom la ñu accrédité fii ci Guinée Bissau waaye premier ministre Aristide Gomis moom mu ñëwul ci cérémonie bi exengul gëwma ni day egsi ndax moom mu defoon benn communiqué démb foo xamante ni dafa ne cérémonie bi du mun a am yoon fii ci Guinée Bissau Bissau pour la RFM Noa Mankeli. Noa jaajëf soxna Binta ñu jugee Guinée Bissau dem Guinée Conakry. Mhm. Eh, ñeenti fan ndox seen digg ak lu aju ci woote yu ñu war a amal foofe waaye dafa mel ne. Euh, coow da caa am kii président Condé nag moom tëjal na buntu ba waa CEDEAO. waa CEDEAO ràpp kay nee bu fa kenn dikk moom président Condé euh, euh, ajuma bi lañ doon xaar benn délégation boo xamante ni président bu Nigéria Muhammadu Buhari bu Ghana Nana Akufo bu Burkina Faso Roch Christian Kaboré ak bu Niger Mouhamadou Youssoufou ñoom ñoo fa waroon dëkk dikk fekk ñaari fan rek waroon a des ci ñaari élection yi nga xamante ni boycotté na ko opposition bi moo ko boycotté muy référendum.

daal di jóg lancé benn opération ci la teg loxo euh, ñaari téeméer ak fanweer rek ñaari nit yoo xamante ne daal dañ leen a bëggoon a sàcc dem jaayi leen euh, ca ñooñu nag ñu ni ay xale yu ndaw yoo xam ne amaguñu sax fukki at ñu jële xibaar bi ci BBC Afrique ñu ne bokkoon nañu ca ñooñu ñu doon bëgg a yóbbu kon jaayi leen jaay euh, jeexale Arabie Saoudite bi nga xam ne daal dinay dakkalandi umra bi ñu koy wax petit pèlerinage du amati kon ba jëmi jamono ñoom nag communiqué lañ ci génnal jaare ko ci ministère sanitaire bu Arabie Saoudite eh, dogal bi nag ñu ni dañu koo jëlandi rek ndax na bëgguñu ñu ni coronavirus bi dëkk ci seen réew eh, visa touristique yi nga xamante ne eh, réew yi nga xam ne aussi dañoo am coronavirus ñu ni dootuñu leen mayeti visa ba keroog boog feebar bi di dàkk. walaay jàll wax nañ dëgg sama boppam la gënal du bañ naa RFM coupe arabe junior moom la ñuy tàmbalee xibaaru tàggat yaram yi ci xibaaru ba ci yi Youssouf Bodian gannaaw su ma la nuyoo Sénégal dana football tey jii quart de finale yi ci ngoon gi la. ginnaaw bi ñu la fayee kon euh, Mohamed Ndiaye Arabie Saoudite moom mu tudd fa la yëfi xewee euh, ci Riyad 15h30 doon ci heure Ndakaaru gaynde Sénégal Bahreïn la ñuy dajal di équipe boo xamante ni naam staff bi xamu ko trop waaye équipe bu Sénégal kon mën na ci génn ci kaddu euh, sélectionneur adjoint bi yóbbu équipe bi foofulee di Issa Aydara. ñu déglu ko te tey suba lañ jokkoog moom kon foofu lay ca Riyad. pour match tey bi euh, defe naa ne ñu ngi koy préparer préparer nañ ko bu baax que xale yi xam nañ leen di xaar ndaxte beneen compétition la ñuy parce que léegi ku ñu dóor nga toog la donc euh, calcul amatul naan su suñ ma gagné mun naa rattrapé wu fi amatul rattrapage donc dangay ngay gagné jàll ñu gagné la après nga ñibbi donc euh, ñun préparé wu nañ si loolu et xam nañ aussi lu ñuy xaar équipe bi ñuy taseel Bahreïn la équipe la boo xam ne dëgër na te mun nañ football yi tamit mais defe naa ne ñun tamit am nañu lu ñu yore am na lu nekk si ñun loo xam ne ñu tam buñ ko mettre en place euh, dinañ dinañ yàlla bu ñu jàppale dinañu jàll. parce que xale yi gis gëm nañ seen bopp xam nañ ne aussi match bi du yomb mais am nañu moyen wu am ay occasion yu bëri parce que équipe ba équipe la boo xam ne dinañ ñoom li ñuy dugal bëri na mais aussi li ñuy encaissé bëri na donc il faut xale yi seen taxawaay baax d'abord si gannaaw pour que après ñu mun a leen song daal di leen indil ay jafe-jafe daal pour mun a dugal but ay occasion moom dinañ ko am maintenant def ko ci biir moo gën a jafe que defe naa ne démb ak bërki démb yëpp liggéey nañ lu baax ci loolu et que voilà su réussite bi ñëwee defe naa dinañ si génn bu soobee yalla Issa Aydara moy sélectionneur adjoint équipe nationale U20 bu Sénégal Bahreïn lañuy dajal bu 15h30 jotee jàppale ni dem nak sen hôtel euh, jot nañoo dalal ki di Bafétimbi Gomis mi nga xamante kon doomu France la cosaanoo kon fi ci Sénégal nek jamono yi foofule ci club bu Riyad foofule ci Arabie Saoudite quart de finale yi kon dorna na Tunisie ak Algérie Maroc Libye Égypte Irak 15h30 les donne même heure que match au Sénégal bi des ba léegi ci wàllu football ak euh, Ligue Europa bi nga xamné tay ji dinañu jouer seizième de finale euh, retour yi la. waaw retour yi la kon ñu intéressé rek match yi bari na wayé match yi nga xamanteni ay doomu Sénégal dañ ci bokk bokku na ci défenseur yi di Ousseynou Ba ak Pape Abdou Cissé nek ci Olympiakos club grec. Grèce. di fekki wa Arsenal sa gañi ñi kon euh, match bi 20h lay doon Arsenal nak gorgol na ci ale bi ba ben benn yoon benn bal ci dara ki di la Gazette mo dugaloon sen but. Krépin Diatta moom loon ci match aller bi waaye bi yoon ñëwaat na ginnaaw gaañu gaañu bi bi taxoon kon bokkuloon ci groupe club Bruges ñoom jamono ji ñu ngi ci Angleterre Manchester United dañuy doon jonganteel euh, bu 20 heures jotee 1-1 ci ale bi dëmb nag ci conférence de presse bi ñu doon amal entraîneur Manchester Manchester bi di euh, Solskjaer xam nga moom doomu Norvège la kon xam na bu baax Crépin ndax gis na ko foofu bi mu nekkee Molde euh, nee na kon jàpp na ni Crépin mu bokk na ci joueur yi gën a xarañ ci clubam boobu la ca Bruges. Ole Gunnar Solskjaer moo wax loolu dem ba ci conférence de presse bi Dame Doy moom dugal na euh, ni ki euh, ci match aller bi euh, pour Copenhague Copenhague nag moom Celtic Glasgow lay dajal 1-1 la match aller bi seen match 20 heures la ñi di waa Gores kon Bulgarie lañu ñu nekk Stéphane Badji nekkoon joueur bu Casa Sport fa la nekk ñoom ñu ngi ca Italie Inter Milan la ñuy dajal Inter Milan moo leen dooroon ci seen dëkk ñaari bal ci dara Demba Ba nekk ca Turquie ca Istanbul Başakşehir Euh, ñoom euh, ci ale bi Sporting Portugal moo leen daanoon benn bal ci ñett ñoo leen di dalal kon euh, tey foofule ca Turquie bu 17h55 jotee ci Ndakaaru football ci jigéen ñi tournoi UFOA A ca Sierra woon tey la ñuy door kon ñaareelu bëccëg bi bu 14h jotee Sénégal ci groupe A bi. Cap Vert lay dajal gayndewu Sénégal seen match bu njëkk dañ ko gagné woon seen diggante ak Guinée mi nga xamante ni kon moom Sierra woon lay dajal bu 16h30 jotee Mohamed. jeexaleeg wàllu boxe xam nañu léegi ñi africain yi qualifié ñi njëkk a qualifié ci Jeux olympiques Tokyo 2020 ñaari fukk ak euh, ñeent lañu euh, ci euh, fanweeri place ak ñett yoo xamante ni war nañ ko joxe fii ci dakaru Algérie nag moo ci ëppale ndax am na cinq boxeurs yoo xamante ni qualifié nañu ba noppi kenn ci ñoom mu ngi wuyoo Ruyamsa Boilam ci 51 kilogrammes yi la bokk moom amoon na médaille d'or ci Jeux africains yi mujj am ñaari médaille d'argent ci ñaari euh, championnat d'Afrique yu mujj euh, moom doomu Algérie bi di wax ay mbébétam ci euh, micro Soda Thiam

proposé ma dem ci rek waaye nak depuis juróom benn atay ni nak nii mën naa wax ni sama lepp la te Algérie tamit ñepp xam nañ ko ci box ndax gagné nañ ci ay médailles d'or yu bëri. Algérie kon médaille d'or lañ bëgg légui juróom-ñeenti ticket moo des euh, ci euh, qualification yi fii ci Ndakaaru ñu war ko xëccoo ci demi-finale yi ak finale yi ñu jàpp ko diggante samedi ak dimanche ca Dakar Arena euh, Mohamed Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Youssouf Bodian. RFM nit ñi yéen kaay yi. Touba Darou Salam Karo savon de Marseille Alphé expert groupe voyage seen gamme Opalia ñoo leen ni may li ci yéen kaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ministre d'État Mbaye Ndiaye ku ko seetaan mu sampal Macky Sall am ndëndëm defaat ko candidat 2024 wutal ko troisième mandat l'observateur nañu def na ko bu noppi. ubbil bi Papa Ngagne Ndiaye moo ko invité woon démb ci télévision Futur Média émission faram fàcce ministre d'État Mbaye Ndiaye di kaak moom ba yegg ci kaabu troisième mandat Macky Sall ca la bu Macky Sall amee yéene doon candidat gisul lu ko ko mën tere du loi du constitution ndax bu ñu sukkandikoo ci constitution bu yees bi Macky am na droit am ñaari mandat yu bu njëkk bi ci la nekk dese na ko beneen mandat bu juróomi at la si ne kay nañu Mbaye Ndiaye gàddu ginnaaw Mahammed Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye wàll si na ci wax ji ba doon faram-fàcce démb ca faram-fàcce li ko boole ci li bi wax ndax ab loi dee su ko dab dabaatal vox populi dab wax ji wax ñu ne li ñu doon ruumandaat ak doon ko njoxtu mu jëm ci troisième mandat bu Macky Sall ministre d'État Mbaye Ndiaye jaar na ca digg ba nag pal gi ko waa Sénégal falaat moom Macky Sall faluñu ko ngir muy dugal Sénégal ci campagne électorale bu dul jeex kàddu la yu bàyyeekoo ci El Hadji Amidou Kassé ñu mën koo jàngee ci xët mu njëkk Sud Quotidien El Hadji Amidou yamu ca ne waxtaan ak journaliste Sud Quotidien ci ponk yu baree bari muy njëg yi yokk ci réew mi réew meeg ñaxtu yeeg njàmbat yeeg ni ñu fi bare courant anti France mbiri parti APR wax naag ñoom it ci waxi dialogue national bi dialogue national boobee soleil national mi ngi ñuy wax ne li ci président national Macky ñooy leader yi Benno Bokk Yaakaar yi li tax nee na mooy leader yi Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ñëpp Macky Sall soppi na leen def leen i surga Mamadou ne juróomi téeméeri sénégalais ñoo nekk ci réew mi ngar dajjoo àlal réew mi aakimoo ko jàpp ne ñoom rek ñoo war a am keneen bokkul nañu bokk dajaje ci xët mu njëkk Le Quotidien journal bi mi ngi ñuy wax ne centrale à charbon ba ñu sëmbu ci sëndu aw fanam narut a gudd baa boog awagul yoon wi ndax entreprise bi ñu sante ngir mu convertir installation yi def ko centrale à gaz entreprise boobee moo amee jafe-jafe koppar journal bi nañu 2022 gi ñu ko appal ngir dox du ca mën pare li pare te mënut dox ni mu waree l'observateur nee nañu moo di compagnie bii di Air Sénégal ndax li ñuy seetlu ci rëq-rëq ci seenub liggéey ak i jafe-jafe bari na L'Obs dem ci ba gis ne compagnie Air Sénégal musiba ngi ko yot libération na ko mu rëy sax li ñu naan kuy naaw say om di diree ko naroo sori loolee mooy bëgg a dal Air Sénégal doomi Sénégal yi ñu ber ca Italie quarantaine leen ndax jàngoroy coronavirus bi anki dina kay nee a waaru waawaaru leen a nekk xel Mor Dieng bokk ci doomi Sénégal yi ci Italie di ñu wax ci enquête nañu fa mu dëkk jàkka ya fa nekk ak église lépp la tëj ndax dañuy bañ ay nit di daje la xëy daje ak Amina di faatu faatu bu bokk ci doomi Sénégal yi ñu quarantaine ca Italie coono ba ñu fay dund jaaxle gaak tonku ga mi ngi koy nittali ci journal bi journal beneen mu di Les Échos xëy na dalal Doudou Diagne Diécko Doudou Diagne wax leen ne di wax waxi championnat ci lambu ji ngir mu ko war moo di jàppale arènes mu ne it bombardier lu ko waay wax tooñ ko am na droit wax xalaatam ndax ci démocratie la ñu nekk ki nekkul ci li ko war duudu jaan jékkoo nañu moo di Yaxya Jóob Yékini ndax moom Yékini bu dee dafa lu ko neexul ci doxalinu CNC bi ci biir CNC bi la ko war a waxe bu ko mënul mu démissionné Baba Tandian Badou dafay bëgg doon président bu Saint-Louis basket club suur soi nañu jege na ko lool président fédération basket ba woon di Baba la ñu bëgg a def président bu Saint-Louis basket club fore nañu ci woowu ba waxtaan ceeg Baba Tandia bu doonee président bu Saint-Louis basket club fay bokk ci comité directeur bu fédération Sénégal bu basket racket wala cambriolage li ci l'observateur ken xamul ni ñu koy tuddee ñetti mbindaan sa ci senu patron càcc gu doy war mitti te bari kay bi nañu kër patron ba lañu dem dajji ko jël fa 120 millions ak ñaari boyeti or yo xamné ay or yu jama ñoo ca nekkoon. Touba Salam Karo savon de Marseille Alphé expert groupe voyage Sengam Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi waxtu di une heure fekk fanweeri minute ak juróom-ñett yegg nañu ak yéen ci ponk bu mujj bi ci xibaaru dégg ba bëccëg gi mu di gis-gis tey jii li ñu ciy waxtaane moo di mbiri mandat bu président de la république jaare ko waxtaane ko nag ak ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci mbiri constitution loole la ñuy waxtaane Euh, teg lii di article 27 de bu constitution bi nga xamante ne ji wax jëm ci mbiri mandat nañu ko a rek euh, ñaata euh, at la ko war a appal ci waxtaan yi ñoo ci ak Pape constitutionnaliste enseignant ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Pape Mounir Sy ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur c'est Pape Mamour Sy. Pape Mamour ngi jégalu bu baax a baax. Mm. beneen wàll que professeur professeur maa ngi lay ah, professeur agrégé qui est wàllu droit et euh, science politique président association des juristes africains euh, Pape Mamoursi Sy ma doore waxtaan wi ak yow mu mel jamono ji li ñëpp yi bëgg a xam mooy bu ñu doon jàngat maanaam def interprétation ci constitution bekk ni ñu ko tënkee jaare ko nag ci li fi xew mu di Macky Sall président de la République ak mandam laaj bu njëkk bi mooy ndax constitution bi may na ko mu présenté waat wutaat beneen mandat am déet ci sa gis-gis. ay la yéwén lire kii disposition article vingt sept bi dañ ko bind benn façon bind boo xam ni maanaam dafa élastique que euh, mun nga ci am lépp la nga la nga ca soxla autrement dit autrement dit mun nañ ko interpréter effectivement dans le sens que may na tey euh, un président euh, qui n'est pas habité par li ñuy wax culture démocratique mm-hmm. hein tey bu ko amul mun naa dem effectivement devant ci conseil constitutionnel bi ne ko man dama bëgg nga interpréter ma disposition bi ndax nga wax ma est-ce que mun naa euh, wut beneen euh, mandat te euh, bind nañ ko d'une façon telle que effectivement conseil constitutionnel mun nañu ragal ni ëllëg dafa naan constitution bi niñ ko laale en deux mille seize maanaam ci li ñuy wax référendum dafa rek ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Vous boobaa euh, mun na ni est ban mandat fii la wax parce que euh, d'ailleurs mandat de cinq ans la ñuy wax mmh. foofu moom leer na ci disposition constitutionnelle bu ñu donc ci ci loolu day wane ni dans dafa mel ni li fi xewoon 2011-2012. onze deux mille douze tey moom ci Sénégal mu melni donc dëkk bi du point de vue principe démocratique yi defuñu jéego dem ca kanam dañoo mel ni ñun dañoo nekk ci place rek du sur place donc di fa cëppi cëppi moo tax ma euh, euh, démocratie ay la ay qui texte mais dafa dépendre ci ay nit yoo ni étant le peuple je veux dire par là culture démocratique, à ah. mon avis, est tout aussi importante que donc les textes, quelle que soit par ailleurs la qualité de leur de leur rédaction Madame, tey lu mu bëgg a texte foofu textes yi mënoo leen bind bind bind bind bind ba nga xam da ngay tëj buntu interprétation yépp parce que loolu sax buñ koy xool tey ci yeneen dëkk yi nga xam ni euh, ñoom la nekkal même bu dee texte bi tëj nañ ko tëj ko tëj ko ba nga xam ni wóor nag gouvernants yi fii ñu fee. Eh, amul fenn fu ñu mën a jaare fu ñu mën a jaare mhm. mun ñu taxañ texte bi sànni ko ca mbalit ma daal di lay proposer ne la voilà man dis euh, constitution bu bees a ngi nii daal di koy bind li ñu pour am ci li ñu bëgg

waaw jërëjëf maa ngi nuyu sama collègue bi euh, Pape Mamour bi nga xam ne moom yàgg nañu doon di liggéey depuis ay années deux mille ci wàllu constitution bi def nañu ay séminaire yu bëri depuis mm-hmm. loolu day wane rek ni que aussi problème constitution bi dafa nekk loo xam ne ñun itteel nañu euh, waaye lu ma bëggoon wax mooy moom Pape Mamour Sy wax na ko léegi mooy ni que euh, problème bi dafa mel ne dafay ñëwaat ndax deux mille onze deux mille douze am na benn téere sax bu ñu bindoon ci élection bi ci association des juristes bu doon expliqué ni que en fait candidature Ablaye Wade bi euh, baaxoon na wala baaxul. waaw loolu loolu débat la boo xam ne 2011 2012 ñu ngi si doon wax lu bari euh, lu ñu gis nag tënk ko mooy dafa mel na Sénégal dafa am problème ci wàllu application loi ci temps bi maanaam tey suñu voté loi principe bi dafa ni que loi bi soo ko voté normalement. Euh, pour lii di ñëw laal moom lay moom lay moom lay moom lay gérer maanaam euh, avenir bi mais en principe loi bi warul gérer loo xam ni euh, ci gannaaw la féete mhm. moom la ñuy wax ci wàllu yoon non rétroactivité mhm. sauf su fekkee ni nag dafa am ay disposition yoo xam ni loi bi ci boppam moo ni léegi loi bi day appliqué wu situation antérieure ak yooyu mais loi constitutionnelle bi nga xam ni voté woon nañ ko ci référendum 2016 bi dafa mel na prévoirul disposition transitoire yi nga xam que loi bi day appliqué wu tamit ci mandat bi nga xam ni moo doon mandat sept ans bi kon xam nga comme loi bi waxu ko ci gannaaw gi le président saisir juge constitutionnel bi mu wax lu mu ci wax nee na mandat boobu bokkul ak mandat bi ndax maanaam boobu nee na dafa intangible kon kenn ko laal donc ëllëg su fekkee ni euh, débat bi dafa ñëwaat ci article 27 sept bi suñu saisiraatee conseil constitutionnel mën a rappeler effectivement ni que waxoon na ko mhm. mais loolu droit la beneen problème bi mooy ci wàllu euh, li ñuy wax légitimité ndax dafa am lu ñuy wax légalité loi ak légitimité maanaam même loi bi su ko permettre euh, il faut que aussi peuple bi ak euh, représentant ak yooyu nekk assemblée ñëpp ànd ci mais référendum amoon na 2016 kon dafa mel na peuple bi prononcé woon na si ba pare ak coow li léegi mooy loolu maanaam li nga xam ne peuple bi daf cee prononcé ba pare amul keneen ku opposition bi ñëwul wax ni que lii baaxul ak yooyu kenn dégg fi kenn ay professeur de droit rek la ñuy dégg wax que du professeur yi ñoo wax def ay action politique professeur de droit dafa naan la yoon baa ngi pour def action politique bi def pression pour ñu changer disposition et hmm. de ci ay transition yoo xam dina indi ay clarification ci la constitution bi kooku en politique très bien maa ngi ñëwaat ci professeur Ogo Seck ma jeexalee ak Pape Mamour si Pape Mamour ñu bëri professeur ñu bëri dañu jàpp ne maanaam tey bu euh, euh, jamono ja ñuy wax mandat ñuy dem conseil constitutionnel mu ne nañ fi bàyyi mandat bu sept ans ndax moom la war a wéyal ca jamono jooja bu ko defoon bu cinq ans ñu bëri jàpp nañ ne coow li lépp du am. loolu la maa ngi dëggal li professeur sama xarit euh, wax muy professeur euh, mhm. quelque part euh, ab daf mhm. parce qu'en 2016 quand même on avait donné qui alerté woon opinion publique bi ne woon nañ bu jàllee ëllëg dinañ mhm. est que mandat de sept ans effectivement malheureusement ci jamono mom deglu dégluwuñu parce que mun nañ wax ni débat bi dañoo considéré woon ni dafa dafa teel par la suite d'ailleurs le professeur Babacar Gueye avec le professeur Jacques-Marie Swanck euh daal di effectivement tirer la la la la sonnette parce que euh, droit qui def droit kenn mënu ko tere interpréter maanaam ni man kat lii ma liir nii laa ko loolu mënoon nañ ko tey euh, andi ci solution bu ñu jëloon li ñuy wax disposition transitoire rek dugal ko ci biir constitution bi daal di wane ni kat ay la ak loo mën a interpréter interpréter nañu considérer ni mandat de sept bi nga xam ne njëkk na koo def dina bokk ci kon euh, li ñuy compter phrase bu ndawa a ndaw moo tax ma ne la quelque part li ñuy jiite

combat bi dafa nekk combat boo xam ne combat juridique la affaire yoon mais tamit combat politique la mais su fekkee ni opposition bi euh, question bi daf ko intéressé wul wala yooyu ah bu boobaa ñi am majorité nga xam ne ñooy contrôler politiquement euh, assemblée yooyu donc ñooñu soo moytuwul euh, loi bi day ànd ak ñoom mhm. waaw loolu daal mooy mooy mooy mais mais ci gàttal daal di nga gis ne moom yoon a ko mën a lijjanti daal waaw yoon daal mooy solution bi. xëy na mooy dalal jooy. jërëjëf professeur Ogo Seck maa ngi lay gërëm bu baax a baax. professeur agrégé en droit et sciences politiques euh, jiite association des juristes africains gërëm Pape Mamour euh, si constitutionnaliste enseignant ci université Cheikh Anta Diop bu dakaro gërëm leen ci ànd beeg radio Futur Média mu newoon gis-gis newoon xibaaru digg bëccëg gi newoon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi newoon Aliou Ba ci machine bi réalisation la Ndiogu Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen Tchikanom Touti, kanam tuuti ay ki Aminata Futur